ak jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu léegi nag am na ab sénégalais dëgg-dëgg sénégalais bu ñuul kukk boo xam ne amee na jàngoroy coronavirus ji maanaam ni ki démb la ñu ko gis ci Touba yéenekaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal naan ñu ci Sénégal ñi nga xam ne maanaam ñeent lañ te ñu doon wax ne dañoo amee jàngoroy coronavirus ji maanaam kenn du si ab sénégalais waaye nag ki nga xamante ni moom la ñu gis ni ki démb moom nag ab sénégalais la bi nga xamante ni daal moom lañ njëkk a gis jàngoroy coronavirus dal ko moom nag gis nañ ko ni ki démb ci Touba daan nañ koy andi fii ci Ndakaaru yéen a kaay gi di réew mi ko di jee moom moo xëy di ñu ko daal di xamala ñi nga xamante nekk ñooy ak njabootam ñi mu jege ñëpp maanaam dañu leen a quarantaine maanaam dañu leen a bera kooku nag ab moodu moodu la Italie la jugee daal di ñëw Sénégal juróom benn fan ci weeru mars ngir nag màggalu kazu rajab gi yéen a kaay gi la turbine mu ñu xamal naan ñu moom nag daan nañ koy jële Touba andi ka Ndakaaru journal bi di Vox ñu xamal naan ñu ab moodu moodu daal moo xeexul jàngoroy coronavirus ji maanaam fi nga xamante ni mooy Touba yéenekaay gi mu ñu xamal naan ñu ca diwaanu Kolda nag am na nag ab touriste français boo xamante ni kooku dañoo njortoon ne dafa amee jàngoroy coronavirus ji waaye nag bi ñu ko saytoo kookee nag amewul joojele jàngoro yéenekaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal naan ñu jàngoroy coronavirus ji nga xam ne jamono ji nag ma ngi lëmbaaje àdduna bi jamono la joo xamante ni maanaam nag ndox dafa ñàkk journal bi ne en tout cas nit ñi nan lañ leen man di waxee jël leen seen i matukaay di raxasu ak yu ni mel te nag maanaam di fagaru daal te ndox manque jamono ji ba maara day taali ñi nga xamante ni ñooy waa o ñoom nag nee nañu daal yenn ci ay forage dañu koy faral di tëj ngir nag di ko net waaye maanaam di ko daal di raxas yéen kaay gi mi réew di quotidien dellu si waat ci jàngoroy coronavirus ji mu ñu xamal nañu nag organisation mondiale de la ñoom nee ñu feebar bi jamono ji lëmbaa jéen a àdduna bi ndax lu toll si téeméer ak fukki junni ci ay nit ñoo xam ne maanaam daat nañu koy amee yéen kaay gi di la turbine mu ñu xamal nañu waa léegi nag nag ñun nag est nag sunu aéroport aéroport yi maanaam du ko nag tëj maanaam aéroport yi du ko tëj ndax nag benn avion bañ wàcce ci réew mi ndax gis nañ ne jàngoroy coronavirus ji ñi ko fii indi daal maanaam sa tugal rek la ñuy daal di jugee yéen gii di Vox Populi mu ñu xamal lan ñu am na benn soxna boo xamante ni nag ab anglaise la maanaam ci réewum britannique kooku nag maanaam amoon na jàngoroy coronavirus ji waaye faj nañu ko ba mu daal di wér kon nag jamono ji mën nañoo wax ne ñetti nit daal ñoo amee jàngoroy coronavirus ji yéen kaay gii di Sud Quotidien ñu fekk fa nag Moussa Diaw di ab jàngalekat ci lu jëm itam ci mbirum science politique ca université Gaston Berger ba ca Saint-Louis la mu xamle nee na Khalifa Sall ci boppam yorul ëllëgëm ci lu jëm ci mbirum politique moom Moussa Diaw ne lu jëm ci mbirum am amnistie sibi loole na Khalifa Sall war na koo bàyyi xel ndax nag am na daal ay ambition yoo xamante ni bu ko fësalee ngir ñu am amnistie ko dina jafe loola yéen a kaay la turbine mu xëy di wax ci Karim Wade mi nga xam ne maanaam bëri na ay ndam ay victoire yoo xam ne am na ko ci lu jëm ci wàllum yoona journal bi nag Karim Wade yooyu ba tey doomu Abdoulaye wadd bi dafa ragal a dugg ci réew mi ana lan la Karim Wade di ragal loolu la journal bi de la Tribune xëy di laajta yéen kaay gi de Libération xëy ci lu doy waar doy waar benn waay boo xamante ni ab féticheur la ba Badara ñaala tudd kooku nag jamono ji dañu ko teg loxo ndax dañu koy tuumaal ne moo santoon benn jigéen ca ñaaxaar na ko rayal benn perental ndax nag jinne yi soo ko rëyul dañoo mer ba maana day taal yi mën nañu laa daal di faagaagal jamono ji teg nañu ko loxo takk deri bi ñu demee këram maanaam ay xarxa fuuxa yu baree baree bari la ñu fa daal fekk yéen a kaay groupe Promo Consulting bi xëy nag ci Mamadou Diop ISEG mi nga xam ne maanaam ma ngi ci loxol yoon ni ki démb am na ab retour de parquet ci lu jëm ci eskandal sexuel bi nga xam ne moom la ñu koy na ba ak Ali Balde ak Abibatu ñoom nag daat nañ leen di bàyyi yéen kaay gii di libération mu ñu xamal na ñu Mamadou Diop ISEC li nga xam ne daal moom la mbir mi wane ba muy njëkk ay jay na Jaynaba boobu nag fukki at ak juróom kese la jay na Jaynaba amoona yéen kaay gi na xëy wax ci négociation yi nga xamante ni maanaam ñoo ngi koy tudd ca mbir ma ndax ñi nga xam ne ñooy avocat yi Jaynaba ñoom nag mbir mi dañoo bëggoon ñu daal di koy négocier jàmm daal di say am waa nag proposition yi nga xamante ni daal maanaam moom la ñu defal Mamadou Diop ak ñi mu àndal maanaam ay avocat mooy mu nangu ne moo jur kii Jaynaba ëmb beneen bi nag maanaam daf koy daal di takk maître Ciré Clédor Ly mi nga xam ne mooy avocat Jaynaba ak maître Alassane Cissé mi layal Mamadou Diop ñoom ñaar ñoo ngi ci yéenekaay gii di grand place maanaam di fa dàgga santé ak di fa sulli ay mbóota journal bi nag ne mbir mi nag est-ce que duñu ko lijjanti si jàmm ak salaama yéenekaay gii de la turbine ak réew mi ko di jàmm mu ñu xamal naa ñu am na ñetti nit ñoo xamante ni teg nañu leen loxo ca diiwaanu Tamba ci lu jëm ci mbirum drogue stade yéenekaay mu ñu xamal naa ñu Liverpool bu Sadio bi nga xam ne maanaam daaw moo jël Ligue des champion ren ji nag daal nañ koy éliminer Atlético Madrid moo fa jaar defal ko affaire ni ki démb Paris Saint-Germain nag ñoom daal nañu génn ci mbal gi ñoom Idrissa Gana Gueye